sommes à 70 kilomètres du sud de la capitale sénégalaise fii nga xamante ni moom mooy Popenguine ñëw fii pour teewee li nga xamante ni mooy 135e édition euh, du pèlerinage marial euh, de Popenguine fii nag pèlerin yu bëri fidèles yi jógee euh, ci Afrique de l'Ouest fu bëri ci Sénégal yi tamit daan fa teew dañ koy nemmeeku à chaque année ci Pentecôte lundi Pentecôte ci année bi dañ fi daje muy pèlerin yi nga xamante ay catholique public ñu daje fii pour ñaan seen borom mais ñëw aussi pour confessionner wu. ci kanam nañ jéem a xool ñi nga xamante ni ñoom ñooy pèlerins yi dem saafonte ak ñoom ah, ñu xamal leen li leen tax a jóg mais aussi eh, lancer seen message pour ñi nga xamante ni daanaka ah, bëgg nañu ñëw wala bokk ñu am yéene ñëw te amuñu les moyens pour venir donc aussi euh, pour ce qui concerne le programme demain nañ leen woon ñi nga xamante ni ñooy les marcheurs cette année c'est Tambacounda qui est à l'honneur en dehors de Dakar alors c'est la 35e édition euh, une édition pas comme les autres euh, c' est vrai que euh, Covid dafa impacté woon ci li nga xamante ne moom mooy pèlerinage bi daal ko dakantal daaw am na ngi koy amalat euh, donc ñu ñaan jàmm ci li nga xamante ni moom mooy pèlerinage bi ñaan fidèles yi nga xamante ne ñoom ñoo fi teew yàlla jéggal leen seen bakkaar ñi nga xamante ni moom mooy seen yéene yi tamit ak seen bëgg-bëgg yàlla defal leen ko ci li nga xamante ni moom mooy la grâce de la Sainte Marie yi nga xamante ni tey doon na koo xamante ni exemple la ci li nga xamante ni mooy diine catholique leeral point net Leral TV euh, ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy Popenguine pour vous faire part et vous mettre au diapason du pèlerinage euh, de cette trente cinquième édition mi nga xamante ni fii lay xewee pour. ah dama ñëw pour delloo si njukkal Yeesu Kirista ak Vierge Marie mi nga xam ne moo gën a sell si jigéen ñi te ñu jigéen may engagé jigéen ñi tamit pour ñu topp ay tànkam gën a mel ni moom. Mhm. pour ñu bañ a dugg si ay tolof tolof. Mhm. ndax moom rek dañuy yaakaar waaw. boobu ngeen moom ah, a moom maa ngi fiy dooree ñoom moom. Hmm. ma fi waaye lu ma si mën a wax. mooy nañ gën a fàttaliku nii nekkuñ si àdduna nii rek waaye foo ñuy xalaat yàlla parce que yàlla moom lu mu mën kenn mënu ko fi waaye pour ñu fàttaliku rek. respecter le couvre-feu pour favoriser la concentration xam ngeen concentration ci lépp la baax. on ne vous prend pas comme des prisonniers mais dañu bëgg juste ay moment yoo xamante ni dinañu mën a concentrer wu vraiment pour xool naka la ñuy aborder sunu sujet moom mooy maanaam naka la ñuy ñëwee wëy sans souci. maa ngi tudd Éric Gomis euh, di coordonnateur koralu doyen bu Rufisque waaw li ñu tax a jóg moom mooy euh, ci occasion 135e édition pèlerinage marial bu Popenguine euh, suñu coordination lañu tànn pour mu animer meesu veillée bi. waaw 135e édition bi moom vraiment ça s'annonce saa s'annonce et que euh, nit yi ñu ngi koy waaj bu baax a baax a baax a baax di ñaan rek Mariama ci barkeel ci barkeem. mu àggaleel ñu sunuy ñaan ci doomam Yeesu Krista sunu borom moom mi di sunu yaakaar. jigéen ñi li leen di dénk rek moom mooy ñu def Mariama royukaay am nañu Mariama comme royukaay ñu bàyyi ko xel. tey def lépp li nga xamante ni moom la leen église moom la église bi santaane loolu rek lan leen di wax ñu delloo si waat xel yi te bu ñu jaaxle jigéen mooy sunu yaay à l'exemple de Marie fu nu jaaxlee rek nañu ñaan Mariama ci barke doomam maa ngi tudd Mathilde Vigintab je suis journaliste communicant bokk ci communication commission communication yi nga xam ne mooy pèlerinage euh, comité national du pèlerinage marial de Popenguine organisation bi euh, fànn yi mu yi mu boole bëri na euh, organisation bi maanaam li ñu fi indi yàlla la li ci gën a am solo mooy aspect aspect spirituel bi maanaam mooy li nga xam ne moo ñu moo ñu fi boole ñëw Mama Marie jóge fu nekk ñëw ba Popenguine euh, ci Notre-Dame de la Délivrance Marie bi nga xam ne moom la ñu ndayale suñu bopp di ko di ko ñaan euh, thème bi nekk comment m'es-tu donné que vienne à jusqu'à la mère de mon maanaam lu rëy la Élisabeth euh, moo ko wax li nga xam ne mooy yaayu ki nekk musalkatam ñëw ñëw ba ci ba ci moom loolu daal lañuy la ñuy xumbal ci 135e bi ci atum 2000 2023 bi euh, organisation bi comme ni ma ko waxee woon bëri na euh, dañu dañu dañu boole ñu boole nekk commission euh, spiri liturgique ñi nga xam ne ñooy lépp li nga xam ne mooy mooy diine ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy gérer aspect spirituel moo am aspect tamit santé parce que ay nit fu ñuy daje voilà xëy na nit sax di nga ñëw ne wér naa mais xëy ne dara mën na laa ndogal mën na laa mën na laa mën na laa jot donc am na ñoo xam ne mën nañ saytu seen seen seen wér-gu-yaram bu weesoo commission santé am na commission sécurité dama koy wax ni en waxuma ko ordre protocolaire sécurité bu ñu waxee sécurité tamit ay nit bu ñu boolee laaj na voilà euh, c'est vrai gendarmerie mu ngi fi mais baax na ci at itam ñun ñi nga xam ne ñoo woote ñu am ñu ñu ñu ñu ñu ñu toogaanoo ku nekk ku leen gis seen xel xel mën a dal li nga xam ne moo tax nga jóge sa kër itam nga mën ko def ci ci xel bu dal am na beneen communication beneen euh, euh, commission mu commission communication bi nga xam ne moom moom laa bokk moo tax moo moo ñu moo ñu boole li nga xam ne mooy taskatu xibaar yi du ay taskatu xibaar sax it kese am ñoo xam ne du ñu taskatu xibaar mais xëy na ñu ngi liggéey foo xam ne ñu ngi ñu ngi jàllale li nga xam ne information boo xam ne soxal na soxal na as askan bi donc moo tax ñu ñëw fi communication bi loolu lay gérer muy accréditation bi facilité un peu yombalal liggéeykat yi par exemple bu leeral TV soxlaa ne dama bëgg benn aspect ñu ne ñu yombalal la ne xëy na boo bu diw disponible na bu ñëwee liggéey bi dina dina dina dina dina gën a bëri euh, xëy na waxuma communi euh, commission yëpp mais mais bëri nañu donc ñëpp ñooy jàpp ci liggéey bi lépp rek pour pour li nga xam ne moo ñu fi indi pèlerinage bi ku ñëw boo amul satisfaction totale sax nga ne au moins dem naa fa Euh, jàll na ci jàmm voilà li nga xam ne mooy commission yi. xam nga organisation bu bu boo sañoon boo wootee lépp nekk 100 pour mais xam nga ni voilà nit moom day day dañuy sabablu rek ne yàlla na yàlla na yàlla nañ ko def génn ci ak euh, alhamdulilah daaw dage nañ fi def ko macha allah sant ci yàlla bu baax 134 134e édition yàlla may ñu gudd fan itam ñu fekkee 135e édition bi liñ ci jublu mooy ki nga xam ne ku nga ñëw. li nga xam ne moo la jëlee sa kër mu bari ba mu bari mu néew nga mën ko nga mën ko def bu ñu waxee pèlerinage marial dañu bëgg ku ñëw boo ñëwee au moins nga am temps am benn cœur ak yàlla am cœur boo xam ne nga koy jox yàlla dénk ko ki nga xam ne mooy mooy maman Marie ñu koy wax euh, un peu parcours pèlerin peut-être dañuy wax ni boo ñëwee ci ci ci ci ci Popenguine au moins war nga mën a def yenn yi pour ne ni au moins sama sama sama pèlerinage validé na parcours yooyu bu benn bi bu ñu ko waxee mën na nekk confession bu ñu nee confession mooy yow boo ñëwee bëgg ñaan yàlla sa xol foog mu set te comme ay nit kese lañ dañuy bàkkaar dañuy ñëw gis prêtre bi wax ko suñu bàkkaar yaakaar ni ci moom mooy suñu ngëm bu ko yàlla jaarale ci moom euh, yàlla dinañu baal suñu suñu bàkkaar ñu moytu daanuwaat ci bàkkaar yi nga xam ne yooyu la ñu dem boobu muy benn ñaareel bi muy mees euh, euh, chrétienne loo loo muy mën nga def prière sa kër mën nga mais ñun mees mooy mooy mooy mooy suñu lépp mooy mooy mooy mooy lu gën a lu gën a rëy donc voilà dañuy ñëw di fàttaliku li Yeesu defoon ci ci ci jeudi bu bu bu bi ñoo voilà ñëw en fraternité participer à la à cette messe beneen aspect bi muy adoration boo gisee euh, boo ñëwee Popenguine ci ginnaaw sanctuaire bi am na fu ñuy tuddee temple de la rencontre mën nañ ko def ci basilique bi itam mën nañ ko def fii ci sanctuaire mais dañu indi loo xam ne dañ ko tabax mu mel ni tent la tudd mu mel ni kër bu bu bu yaatu ñu ñu rafetal ko koo xam ne boo ñëwee mën nga ci wéetoog sa yàlla ku ne bu ñuy ñëw am na loo indaale ne yàlla voilà lii laa la dénk nga saafaral ma ko voilà mu nekk adoration day am saint sacrement nga ñëw adoré ba ba heure bu la neex voilà nga nga dem beneen aspect bi mooy chapelet euh, ñun mooy Mama bi ñu fi indi ñun de bu ñuy bu ñuy ñaan yàlla dañ koy jaarale itam ci ci Marie mu yor suñu chapelet ñu ne boo ñëwee tamit mën nga def sa chapelet mun nga def sa sa rosaire comme fii dañ ko ndayalee maman Marie boo ñëwee mun nga ko dénk tamit euh, li nga xam ne moo la fi indi beneen euh, aspect euh, parcours du pèlerin bi mooy rencontre fraternelle ma jóge ma jóge sama kër xëy na am na ñu ma xamoon dox dajale set mais au moins ma da ma am ñoo xam ne Euh, Popenguine moo tax ma xam ma xam leen mu mel ni man ak yow c'est vrai que c'est la première fois ñu ñu gisee mais au moins Popenguine aura permis ñu fraterniser ma ak yow lu mu néew néew voilà jàmm am na ci ku ne ñaanalante ku ne mën naa mën naa ñaan sama xol ci gàttal voilà léegi loolu nga xam ne mooy euh, parcours du pèlerin kuy jóge si kër ñëw boo ko matalee rek mën nañ wax ni am nga am nga pèlerinage. nombre de marcheurs pour cette année euh, bari nañ lim bi nag ci olof dina dina jafe mais ñu ngi toll ci 21 127. bu buñ ko tollee yépp mais xam nga ñu jógee Dakar buñ jóg ñu jógee Dakar ñoom nañ toll ci 18200 ñoom ñooy ñoom ñooy jóge ndakaaru ñëw mais xam nga pèlerinage du Dakar kese du ñu jógee Dakar kese euh, ren nag euh, euh, diocèse u Tamba ñoom ñoo ñoom ñoo nekk à l'honneur moom la ñu wax ñoom la ñu ndeyale wala bàyyele ñoom ñoo nekk à l'honneur 135e édition bi diocèse u Tamba mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy fësal voilà bu ñu xam ne du Dakar kese ñoom Tamba waa Tamba itam toll nañ ci 315 marcheurs ñuy jóge du ñu Tamba donc dañuy ñëw ci ci benn marché bi marché pèlerinage incha allah suba bu ñu xëyee waa Dakar dinañ dinañ bàyyeekoo Cap des Biches voilà waa Dakar ñu jógee ñu jógee euh, Marie Madeleine tamit am na foyer bi nga xam ne foyer de foyer de marche la waa Thiès ak Saint-Louis toll nañ ci 1737 ah ak euh, voilà plus une centaine de responsables ñi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak ñoom waa Ziguinchor ñu ngi toll ci 460 donc euh, Kaolack Dosipec voilà mooy ci euh, waa Petite Côte bi donc ñoom ñëpp bu ñu bu ñu bu ñu boolee xayma bi yëpp ñoo maanaam marché bi bi pa dinañ toll ci 120 27000 27000 100 120 lim bu takku la voilà yàlla na yàlla ku ne li nga ñu ñu yàlla ñu ngi leen di ñaan ñu am ñu yeewu ci jàmm am am am kàttan doole voilà mën a dox ba yegg si Popenguine gis nañ ni nag euh, pour la première fois ren Popenguine dafa dafa tàng tàng na trop voilà nañ ñaan yàlla euh, voilà ñu ñu def seen démarche de foi boobu yegg si ci jàmm ku ne voilà mbébét bi nga am mën ko dénk teg ko au pied de de Notre Dame de la de la délivrance kuy ñëw daal bu mu ne topp parcours bi baax na mais bu ñu ñëwee ci messe bi tamit ñu wàññi tàccu bi tuuti parce que dañuy gis ni day day perturbe un peu voilà li nga xam ne mooy célébration bi euh, bu ñu ñëwee itam gis nañ Popenguine bi ku ku am boo lekkee am mbuus wala kayit am na ay bërëb yoo xam ne mën nga ko fa sànni maanaam bërëb bi nga xam ne noonu ñun ñoo fi ne mu ñu ñu ñu sàmm ko mu mu mu set beneen aspect bi mooy euh, nit ñi dañ koy wax te dañ koy dañ koy wax lu bari dañuy ñëw Popenguine ngir gis ni day bëri des fois aspect spirituel la bu baax di nga bëgg am euh, dénk loo dénk yàlla mais xëy na bruit bi autour dina tax ba doo ko doo ko mën bruit bi tamit autour mais jàpp nañ ba nañ na ci périmètre sanctuaire bi du am du am du am jaay sàngara du du am du ñu permettre amit yenn yenn yenn bruit yi mais euh, dëgg la xam nga kuy jaay sàngara tamit boo ko bu amul kuy jënd du du jar voilà donc euh, buñ ko mënee moytu rek buñ ko mën bu mënta ñàkk buñ ko mënee moytu bu ñu ñëwee itam euh, am na dañuy jaay sondal sondal bëri na dëgg la pour ñëw moom la ñu taal ñaanee mais am na yoo xam ne Euh, bëriwul pollution ay votive lañ koy wax ay sondel yu yu ndaw la nii voilà donc euh, tige bi du gudd donc xëy na buñ ko tegee du mën a du mën a du mën a flammé ba xëy na ñu asthmatique mu xaw leen sonal voilà bëri na li nga xam ne mooy recommandation yi loolu la voilà buñ ko buñ ko ci mënee jàpp rek ku ne jàpp ci ku bëgg a wu tamit comité bi am na site am na site pèlerinage Popenguine point org am nañ page Facebook voilà ku mën a am nga xam ne presse bi mën nañ am seen dossier de presse mën ci mën ci jot fi nga xam ne foofu lañ accrédité woo ku ci dem incha allah di nga di nga mën a am lépp information ku ñëw fii tamit espace presse ah di nga di nga boo am boo amee soxla nga ne kii diw laa bëgg boo amee benn benn benn élément boo bëgg def nga am benn angle traitement boo ñëwee itam laaj mi nañ la mën a wax boo xëy na boo demee ci diw boo demee ci diw liggéey bi dina dina dina gën a yemb voilà grosso modo li ñu mën a wax ci 135e édition bi nga xam ne Maman Marie au pied de la ñu koy defee at bu nekk fii ci ci ci Popenguine euh, at bi nag euh, aspect bi innova innovation bi mooy doon at bu nekk ci sanctuaire bi lañ daan defee dañ daan defee ñu gis ni nit ñi dañuy ñëw mu mu mu bari voilà donc ren autorité yi nos pères évêques boobu bëgg wax ni nañ ko délocaliser yóbbu ko ci ci sanctuaire bi ngeen xëy na jot ngeen fa dem nga xam ne en construction la certes mais dem nañ def yëpp ba mën a commodité yi li nga xam ne essentiel na voilà nit mën na fa toog jàng sa messe te voilà te loolu yéen en espérant que lundi rek lay doon incha allah bu lundi jotee feetu jouru Pentecôte bi foofu la père évêque di jàpp rappelé ni ki nga xam ne mooy Paul Abel Mamba di évêque bu Tambacounda moom mooy def mooy jàng messe boobu bëri na ay mees itam voilà dina am meesu scout dina am meesu organisateurs yi parce que dañuy jàpp dinañ am seen mees ñoom samedi matin lañ koy def scout yi tam dinañ am mees bëri na ay mees daal programme bi noonu la noonu la noonu tëdd maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax voilà ngeen jox rendez-vous di ngeen mën ngeen suivre programme Leral TV sur toutes les plateformes digitales digitales